jërë ngeen jëf ndox du bàyyi yoonam gi ñuy wax ku ko weddi xoolal ci Modou Lo combat bi woon démb diggam ak Ama Baldé yéenekaay yu bari ñu xëyandool ci la ñu xëy bokk ci ñoom record yéenekaay mi ñuy wax ne roi des arènes mooy Modou Lo la ko gën a doon ñi koy xalaata doon nañu tekki seeni jàjj ndax buur bi faatoogul jegewul sax kuy jeexal te wane na ko démb ci arène nationale ba ne ci lu matul minute maanaam ci 52 secondes ci la Modou Lo corrigé bi boole ko ki photo yu Modou Lo jàppee Ama Baldé sëggal ko di ko yónnee ay parrainage maanaam ay kurpañ yu wex xatt tàng jër boole ko takarnaase ko nokk sa ko ba sëll bu ndaw ne sëlañ def kat appi arbitre ya dem mbaar xooli var ca la ñu jox Modou Lo ndam li bés bi le jour nañu loo écrasé na ama ba far wat ko parrainage yam ko doon jox mu di kurpañ yam ko doon dóor ak yam ko doon rokkas ba mu ko sëggalee bés bi le jour nee nañu toll na ci ñaar fukki kurpañ ak ñaar 22 coups sunu lamb bind ne Modou Lo téye war na koronam ba mu dëgër lamb bi démbam ji sunu lamb nee nañu mooy lambam ju njëkk ci yéppi ànd ak téeméeri saveur ndax Ama dafa ñëw ci lambu ji geetaru ba dëgër lu ne mu takk ko lu ne mu laal ko lu ne mu diwoo ko lu ne mu sotteekoo ko Modou moom ñëw may ko simple bi takkul gàllaaj gu ñuy gis jàkkaarloo ak Ama Baldé koy kurpañ ba mu def kat appi Khalifa Mohamed Traoré di préparateur mental ni ñu ci l'observateur li Modou indi démb ñi ci lambu ji ak sëriñ yi ci lambu yi war nañ cee jànge Zallo di mbër mu sippi di ñu wax a joxe Ama Baldé ab toroxalam suur nañu duma ko delloo ko palaasam jëlaat koronam tëye ci lu matul minute yéenekaay bi nañu Modou Lo moo aay ci mbëri Pikine yi TFM moo aay ci lamb L'Observateur moo ko bind ba dolli ñu ci ne couverture royale la télévision Futurs Médias def ci commission électorale nationale autonome wàccee fa ña fa ne woon teg fa ñeneen dogal baak décret ba mooy mbambu ba léegi li ko waral Walf Quotidien ci am ne nañu dañoo amee ak piite ci politique am na ci ñu def ki mille demandes de a Macky Sall mi ko def xëtt na protocole additionnel bu CEDEAO bi nañu décret bu bokk ci membre yi buggan gi dani borom gëm sa bopp a démissionné ca conseil constitutionnel sans mu defee ko ni mandat moom buggan gi dani mu fay jug rëq-rëq yi am ci nomination yi président Macky Sall def bay sàkku na ci juriste yi ñu génn gindi askan wi leeralal leen ci a contesté ci ak langam ndax njariñu Ousmane Sonko lay doon moom mi ñu tëj ba pare rajo ko ci liste électorale yi wala ndax njariñul Karim Wade lay doon moom mi ci alamaanu 138 yi rassemblement pour la vérité dëgg mu wóor di parti Pape Modou Fall bi point actu nee nañu ñoo ngi mel ni fitt gumbër sànni ci parrainage yi wane seen bopp bu baax a baax ca diwaanu Bawal ndax dajale nañ fa candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba parrainage yu toll ci 24 nañu loolee ab téeñ la rek ndax seen yéene mooy yegg ci 50 suur soo mel ne ku naan ñu waa kër Macky Sall yi seen yaram dafa tàng jëri ci wutum parrainage firnde li journal bi nañu mooy ca Kaffrine député bu Koungheul bii di honorable député Fanta Sall dajale na fa lu ci 7 teg ko ci loxoy coordonnateur